ñaari mbër yaa nga noona ca côté saaku ya caatu puyol à gauche sokku deux à droite ñaari ngem muy xonq waaye caatu puyol moom xam naa ne bëri na mbooloo moom Mansour yokkal zoom bi yokk ngay wàññi dinaa la dóor de booy sa lex baa ngi ma tiim dama lay mbéj de waa naa na leer nàññi ñi midi ñaari mbër yaa nga ca caatu Puyol Sokku de caatu Puyol Sokku de ñu ngay dem rek waaye caatu Puyol de loo ci mën a dégg Mansour mbooloo la bari li Lamine de gis naa xale bu bari mbooloo tey caatu Puyol la bari mbooloo école de lutte booy gànjool nga ne eh jël nañu caatu Puyol waaye mbaa duñ la daan bañ na de. caat bañ na de caat delloo na ko de sokku daa wàcc bu tànk ba caat delloo ko fa mu jóge woon ñu daw solante ca kaw roofoo caat daf may xaw a saw saf usa saw ee eh, laa ilaaha illallah ee eh, caatu puyol waay yow xoolal caatoo caat waay caatu puyol waay puyol ba am na ca doxal booy xool mbooloo mi xool waa kër Caatu Puyol xoolal lii xoolal ma waa kër Caatu Puyol xool ma waa kër Caatu Puyol kay kaay kaay kaay kay kay kaay kaay kaay kaay kaay waa kër Caatu Puyol a ngi nii seen mbër a daan def lu leen neex def leen lu leen neex jëlal ma kii xoolal kii caata daan caata Blindé Blindé xale bi fu mu nekkoon waaw dara mu ngi fi rek caata ngay jooy waa caat doo wax mu ngay nuyu supporter ya ndeysaan lii daw na yaram lii daw na yaram c'est bon boy. maa lay bëggal lu la. bëri. ci loo ne. ana waa Guy Murit. ñu ngi dee moo lay xaar tey. Guy Murit moo may xaar. bëre lu la ciy xaar. buñ ci àggee dina leer say nopp. da ngay def yëfi Ronaldinho. ma romb ko. teg ko si temps rek. teg ci temps. kese. mu leer. leer nag. kon ba ci kanam. yal na yàlla nangu ziar Babacar. tey Mbaye Yékini delloo la njukkal ci làmb nga ànd ak say mbokk ak sa soo ñëw loolu lu mu def ci ak loo ciy wax. tey daal xanaa Babacar am mbégte mu rëy tey am mbégte moo xamante ne am na tàmbali waaye amul yem waaye Babacar Mbaye Yékini li mu def dafa rëy. moo tax tey gisoo bi may ñëw dama ànd samay mbokk ànd ak samay xarit ànd ak samay am di li naroon na ñëw ci stade bi yëpp xajuñu ci stade bi première édition la moo tax dama ko oyofal rek waaye Mbaye Yékini dina xam ni laal na laalaake Mbaye Yékini dina xam ni fekk na le griot du peuple mu tuddee ko làmb moo tax tey sama yaay sax moo ma ne nan ko def lu yem rek moo tax ma yemale mais Babacar sama mbooloo xajul fii barke borom Touba lu garaaw laa lay wax xam nga lan moo lay may nit fexeel ba am ak ñoom jàmm xam nga lu lay may nit ñi fexeel a ñoom xam nga lan moo lay may nit ñi looy yéene sa bopp ci lu baax yéene leen ko Babacar borom Leewtoo TV sama xarit mon ami mon frère loolu am xam nga lan moo lay may nit ñi fexe ba jaxasoog ñoom di waxtaan ñoom di pelloog ñoom loo yéene sa bopp ci lu baax yéene leen ko Babacar tey damaa kontaan mbokk xarit dëkkandoo am di jàmm tey ñëpp mu wuy si Babacar tey daal am naa contentement tey am naa mbégte mu rëy tey tey daal tey Babacar na leen leen ni bés bi mbégte ñëpp ñoo ko bokk presse bi yëpp tey bi may dugg si bi presse bi ñëpp jóg damaa kontaan dama lay bàyyi nga dem doxal fële waaye Issakha Diop jërëjëf maire de la commune de Pikine Est le maire très dynamique l'espoir de le régulateur du département. eh jël na ko Ronaldinho ak Ronaldinho jël na ko Ronaldinho jël na ko Ronaldinho jël na ko ndax da koy jaay yëfi Ronaldinho eh jóg nañu jóg nañu waaye Ronaldinho jëlaat na ko de Ronaldinho mbaa duñ la daan wala Ronaldinho dina ko wër ndombo. war na ko ndombo buddi na ko dóor ci suuf la ilaha illallah eh Ronaldinho waaye def na yëfi Ronaldinho yëfi Ronaldinho waaye lu la neex tudde ko daan na ko di waxtaan ak moom daan na ko bay waxtaan ak moom waaye dafa mën a bëre Babacar maa ngi lay delloo ziar bu rëbër. may looy jooy lu tooy la soxal ba nga jooy. dama kontaan Babacar dama kontaan dama xam ne sama sama ñaanu ndey wàllu cinéma barke Alxuraanu Karim kontaan naa bu baax. arbitre baa ngay waaj a soufflé. Deux Siga à gauche Kaw Gourdin Ndaam arbitre baa ngi laajte ndax pare ngeen nuyu naa ñëpp di jaale jéey seen xaritam boobu génn àddina tey di burgewel waaye beneen burgewel ba tamit ñu ngi koy jaale ay mbokkam di ñaan yàlla yërëm leen xareel aljana jéey jaal nañ la ko jaal ko waa Géeja way jaal ko Abdoulaat Ndiaye mbay yi ne ñu fi woo ñaari mbër yi arbitre soufflé na ci Leewtoo TV Mansour ay filmé. ndeysaan ñaari mbër yaa ngay lewtoo doomu Parcelles doomu Grand looloo am Parcelles ak Grand Yoff de sàkku xam-xam Kaaw Gourdin Dalifort wala boog Dalifort waaw Kaaw Gourdin Dalifort la nuy naa waa Dalifort kon waa Maris lépp ci Dalifort ba Yaraax waaye du mën a ñàkk Louis Senghor maa ngi koy nuyu madame Diouf di nuyu bërëm këram sama xarit sama mag docteur Macoumba Diouf Louis sama jigéen nuyu naa la ñaari mbër yaa ngay lewtoo Kaw Gourdin à droite deux siga à xam-xam nuyu naa waa parcelle 1 ba ñaari mbër yaa nga ca de ñu ngay lewaatoo de ñaari mbër yaa ngay lewaatoo de Kaaw ak deux nu wan léegi ginnaaw Kaaw a gàtt xaw a niroog Oussa Sow taxawaay Oussa Sow mu ngi koy ngi koy nuyu ca France magi Papa Sow ak Tafa Junior waa mbër mu jantal la woon kooku ñeme bëgg bërëm suuf mu ngi ca tubaab ya tey ñaari mbër yaa ngay lewaatoo ba tey loxo jógagul somb amagul kaawang koy gëdd deux di arrière deux taxawal deux nga yaakaar doo taxawam deux gos ba dal na de kaaw gourte gos boobu ñu la dal kaaw gourte gos boobu ñu la dóor fëgg nañ la gourte mu jël ko jël na ko bi mu bañ waaw bañ na de njool la laa ilaha illallah kaaw gurde e du foofu ñëw leen ci biir toppal loolu Mansour toppal ma loolu de ñoo nga ca de ñoo nga ca de kaaw ak deux kaaw sang de jëli na tànk ba mu yokku ko da koy daan na ko jëli bu rëy njool siga lii la def da koo jël mu yokku ko yokka ngi Mansour da koo jëli mu yokku ko loolooy yokku poli sànni la ca binaa ca ginnaaw poli na ko sànni ko loolu la kaaw gurdee walla loolu la deux siga def kaaw waaye deux siga waay kaay